asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi leen di nuyu yéen waa Sénégal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ci réew mi yëpp euh, di nuyu sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ci wér moo mboolem xalifa yu ne ci réew mi waaye di ñaan yàlla màggal gii nga xam ne ci leen jëm si ñu egg ci ak jàmm euh, maanaam jeexal ko ci jàmm ba mu xam ne ndigal li nga xam ne moom la ñu seexul xadim joxoon euh, ñu mën koo def ci jàmm di wax ne it Euh, ay kàddu yu gàtt lay wax de xamal nit ñi euh, sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul mooy kan sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul nekk na sëriñ Muntaxa Euh, mboolem xalifa bu fi nekk muy doom yi sëriñ Tuubaa yi ba ñëpp xam nañ diggante ak sëriñ Saaliwu mu nekk am sëñ Muntaxaam nekk tamati am sëñ Muntaxaam sëñ Mouhamadou Mourtala waaye nekk sëñ Muntaxaam mboolem ay magam la tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Baara ba ci sëriñ euh, Sidi Maxtaar ba tey ji mu nekk moom Xaadimu Rasul kon tey euh, kooku yayoo na kooku yeyoo na màggal waaye yeyoo na gën a jox cër ndax tey dëkk bi di moom amuñu lu dul moom bu yëkkatee ay kàddu wax lu jëm ci àgganam guy ñëw ñëpp war nañoo mën a jëfandikoo kàddu gooy ndax moom ci ndigal la am nekk ba tey mu nekk xaadimu rasul ñu wax ne nag ñi fi yëkkate ay kàddu ak di yëkkati ay menaces di ko menacer nan xam ne fii ci dëkk bi benn kàddu moo fi am. fiir ci dëkk bi benn yaakaar lañ fi am muy mu taxaa lépp loo xam ne wax na ko jaareel ko ci seex Cheikh Mouhamadul Basir loolee mboolem ñun dëkk bi ci loolu lañ war a tënk ndax dëkk bi loolu mooy li ko tënk ñu mu wax ne nag heure bii nga xam ne moom la fi président di ñëw la ci sëñ sëriñ taxaa di wax bépp ndaw boo xam ne yëkkate nga ci kàddu moo xam koo man di doon ci mu leer na ne sëriñ mu la mu war a def lépp def na ko ca ñam ko si ña nga xam ne ñoom la ko waroon a defal ba tey mu doon Xaadimu Rasuul bépp ndaw boo yëkkate ay kàddu di wax mu leer na nañ ne sa waajur sax bu yëkkatoo bu sëriñ Muntaxa yëkkatoon kàddu du wax nga yëkkati kàddu di wax loo fi yëkkati wala loo fi def loolee dañ ko defanteeg yow parce que nag dafa am loo xam ne nañ ko arrêté ñun yoonu murid dafa am ci lu tënku lan tënku nag mooy genn kàddu genn kàddu la sëriñ Muntaxa moo ko yore jox ko Cheikh Mamadou Bassirou lépp lu mu ci jox ndigal loolu lan la def ñëw gi nga xam ne moom la fi président di ñëw ñëw fi ngir politique dafay ñëw ngir màggal màggal googu mu fi ñëw ngir ñoom mboolem président yi ko fiy jiitu noonu lañ ko doon doxalee kon moom li ko fi indi du politique nee naa leen nag fi président nekk ak ñoom fi nekk dafa wutee président Touba gii jàppewu ko lu dul Serigne Touba la ko jàppee Touba gii moom ci jëmmi boppam lépp lu mu fi def ndigalu sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul la cay wéyee ci ndigalu sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul mooy boole na ko sëñ Tuubaa kon lu mu fi jëf lu ne sëñ Tuubaa la koy de la ko jëfee kon du politique moo tax mu di ko jëf ñëw fi ngir di ko ngir politique dafee ñëw ngir màggal kooku nag foofu la nekk nee naa la li am solo moom ndigal loole ba mu ci nekkee ba léegi ba léegi si may waxee yow gu ko ndax mi ngi gañee Sénégal ci Touba ci biir Sénégal la kon gagné googu muy gagné Sénégal ci wëy ci ndigalu sëñ Touba jooyee wan na ne sëñ Touba moomee ku sëñ Muntaxa euh, euh, booleel sëñ Touba moomee ma ngi koy fay li mu fiy jëf lépp kon nan bàyyi xel ne président buy ñëw fii ñiy santas ak di yëkkati kàddu bëgg ñu bàyyi leen xel wala ñu geestu leen loolu it nañ ko arrêté bu fekkee nit ki bu waxee rek wala menaces yi ñu woo ko negg-neggal ko wala yu mel noonu yooyu nañ ko arrêté affaire menaces yooyu na nañ ko arrêté ci wéyee kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha gii li ci des nag nga xam ne moom laay annoncé waat ministre yi ñëw ci dëkk bi ñun dañ fa nekkal président Macky ñu ñu ñu di ko jàppale war na bu ñu duggatee ci dëkk bi alee ku ñuy léem-léem di di di di demaat lan war a demee wala lanuy nekk war nañ koo xam bu bu ëllëgee bu desee ci dëkk bi xam lan la ñuy défendre xam lan la la lan jëf xam lan lan fa war a wax waaye bu ñëwee ñëw ci dëkk bi di léem-léem ak di néem-néem dëkk bi lan fi war a def lépp ñun duñ ko xam ci ñun ñu leen di jàppale ah loolu moo tegut ci yoon nit ki bu la nekkalee da koy nekkal nit ki bu la nekkalee tamit la ngay dox da koo war a xam bu bu ëllëgee bu desee ak i mbokkam des waa dëkkam mën a waxtaan ak ñoom loolu moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg mbooleem responsable yi fi nekkit ñoo a doxal bu ëllëgee ñun ko waxuma ko du kenn du na faa a yem tas yàgg na fi Abdou Diouf nekk na fi di ñëw na fi am ñuy saboté kon tey bu Macky Sall ñëwee du ñàkk am ñuy saboté ñiy saboté kuy saboté ku nekk nag jàpp naa ne fu kàddu sëñ Mountakha yëkkati ko man jàpp naa ne kenn amut fu kàddu wala ku fi def loo war a def it ñu fi def mooy euh, euh, ñu lapp la képp moo fi am parce que nag ab dëkk dafa am borom sëriñ Basiru wax na ci tudd sëriñ Muntaxa ñooñu ñun ñëpp dañ ko war a respecté menaces yi nag ak yooyu président mac Sall mi ma xam moom ay chantage ak ay menaces loolu yëngalu ko li tax mu ñëw ci dëkk bi mooy ndigalu sëriñ bi ak màggal si ak la nga xam ne tamit mi ngi koy jëfal sëñ tubaa parce que ba mu ko dalee defal sëñ Touba ba léegi si doonu loo xam ne réccoogu ko mi ngi nekk ci dëkk bi réew mi di gañe Sénégal ci gañewu tubaa ci taxul mu récc ko ndax la am solo mooy wéy na ci ndigalu sëriñ bi lu ne it mi ngi koy jëf ci dëkk bi ngir jëmmi sëñ bi kon bu ñëwee di immigré ab hôpital loo xam ne da ko defal waa Touba loolu jàpp naa ne mbégte lañ ci war a ànd ak kontaan képp ko am règlement di politique war nga ko mën a régler feneen feneen fudul ci arrivé président ci ak màggal ak lu mu war a intégré muy euh, maanaam ab hôpital bu mu fi def. ma ne du ma tudd ay tur ñëpp xam naa leen waaye tudd ay tur concerné wu ma nekkuma fi ngir tudd tur ndax am na loo xam ne weesu naa ko waaye daal li may wax waxtu wu nekk nit ki daal bu fekkee ne boo yëkkatee kàddu sëriñ taxaa bu yëkkatee kàddu waajur wala jur. du amu kàddu gu mu yëkkati ndax xam ne ni Serigne Touba rek fi nekk kon war nañoo mën a jàpp ne Serigne Mountakha fépp fu mu waxatee kenn warut a yëkkati kàddoom ndax ñun ci loolu lañ tënku ci loolu mën a lu man di doon comme man di doon nag boo ko fi defee la ca la ca war war nañ koo def ndax président Macky Sall sëñ bi nga yeb ca boo yebee sëñ bi it ñun ci suñ jëmm yi boppam man li may wax rek dëgg rek moo fi nekkal maanaam heure bu ñëwee fii war naa mën a saafunteeg kilifa diine waaye war naa mën a saafunteeg ñi mu war a ànd ñi muy àndal ndax loolu it day ab sag la kon nag moom ko tamit li ma nga xam ne tamati moom lay wax ci dëgg man lu may wax rek ci dëgg laa koy teg bu ñëwetee ci dëkk bii li mu war a def bu gisantee ak sëriñ bi ak kilifa yi mu war a gis ba noppi nga xam ne dañ ko fiy jàppale ca ñu ànd ak moom ca am di ko taxawal guddee ak bëccëg ñoo ñit war naa saafonteeg ñoom man xam ne moom mii ci jëmi boppam ah, ah, ñii mooy ñi ko fi nekkal ndax président Wade ak yeneen président yi ni naan defit bu ñu fi duggee bu ñu waxee ak sëriñ si ña fa ña fa def di leen jàppale ñu man di doon mooy département bi moo xam ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ak ñi nekk ci mën monde rural bi ma toog ak ñoom waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom ban xam ne am na ñoo xam ne ñu ko fi nekkal am na ak ak yëg ci ñoom loolu nag moom moom ci boppam laa koy ñaan heure bu fi ñëwtee na na ko doxalee noonu ndax mooy li am solo dana tax nit ñi gën a góorgóorlu ñoom ñi ko ànd ak moom